Seex Ibra Faati doy na ab xalifa Bamba ko seexal ay moroomam amu Cheikh Ibra Faati doy na xalifa Cheikh Bamba ko seexal ay moroomam amu fi bu Cheikh Bamba doon Muusa mu dim Haaruna yoon ma awak wa Cheikh ya aw sorena borom maqaama am nay karaama nee jaaraama maam Cerno Faati borom maqaama am nay karaama nee jaaraama maam Cerno Faati ba Bamba soxla yow fa wóolu yàlla la wóolu maam Cerno borom daaru muxteek daaru manaani bàyyi Seex Awa Balla Seex Moodu Awa Balla bàyyi Sëriñ Abbaas Mbakke bàyyi Sëriñ Seex Xaddi bàyyi Sëriñ Usmaan Mbakke maami Seex Moodu Mafoos Mbakke ba Bamba soxlaa yow leen fa la wóolu maam Cerno Faati borom daaru ba Bamba soxlaa yow leen fa la wóolu maam Cerno Faati borom daarul muxti ba Seex Bamba soxlaa yow leen yàlla la wóolu cerno faati bamba yabal maam cerno ibra faati muy wuy ji ndar di nuru baati ba mu demee ndar noon ba leetar ba ne leen garab wangaas ya mooy tiitar ba danaa déggi bóot ba sànni ca àll ba tasaare tool ba maam abduloo kalaame ko borom ndar ak ibra fatim saar ñu dëkke bër bër borom daaru muxteeg daaru manaani maam cerno faati bay si awa balla ak seex awa balla